bismillah fi moy miixa yi place yi nga wara commencer def sa armal yow mi aj moy place yu xonq yooyu kenn ku nek amna fuñ la cërale rew mu ne bo ñëwee ne fi nga kii da ngay sangu nga dal sol nak yeri ñi armalé moy comme ni waji solo jigen man na sol yeri yu mel ni mom kenn aayoo ko lu ñew man na sol yeri mel way na jot waaye liñ bëgg mooy armal bi nga boole ko boo sëlmale sa julli farata rek nga boole ko armal bi bu fekkee waxtu farata moo jot bu fekkee waxtu farata nag da ngay daal julli ñaar rakka ndax bi nga pare war ngaa julli ñaari rakka ndax sunna la nga daal kay nag dugg nag ci nusuk bi nga bëgg bu fekkee da ngaa bëgg a def ifraat muy aj rek da nga naan bayka hajja bu bëggee def nag boole leen mooy aj ak umra da nga naan umratan wa hajja bu fekkee ne da ngaa bëgg a def tamattu mooy aj umra rek da nga naan la bay ko umra léegi nag da nga daal dugg nag talbe yi waaye lii ngay wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna al amda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak yi da nga koy wax ba ba ngay dugg màkk nga daal di dugg nag ci taxaw bi boo demee màkka waaye na nga ko bi nga defee nusuk ba pare bi nga armalee ba pare am na yoo xamante ni danga natul nga di ko def ba ba ngay dindi sa armal mbir yooyu nag mooy comme yi nga xamante ni ju bu sol lu ñu sol bu lu ñuy ñaw comme lu mel nii ci góor bu sol mbaxana wala ngay muuru loolu yëpp dañ koy aaye bu dagg dara ci sa karaw yaram wala sa karaw wala ngay watu yooyu yëpp dañ koy aaye bul te bul laal parfum wala yi da koy laal avant ngay def bul dagg sa ya, say we saydul bari itam dañuy dañuy bañ nga laal nga ray leen wala nga dimbali koy def yow mi armal manam do tak jabar sa wakri ana ñomit do sey ak ñom do taxit bànneexu ci ñom jigéen wata muro comme nii warta sol itam ay gants bu xande day armal léegi nak euh, ñi ngi joge jëm makka boo egsee nag ci masjidu aram da ngay jiital sa tànku ndeyjoor bi ngay dugg waaye nag lii ngay wax bismillah Wa والسلام ala rasulillah الله اللهم اغفر li ذنوبي وافتح li أبواب rahmatik nga di dugg nag ak toroxlu tagg yàlla màggal ko sant nag ci xéewal gim la defal ba nga ñëw fii te bar nañu fi munta ñëw te ñëwuñu yàlla xéewal yow ba nga egsi fi nga di koy sant ci loolu léegi nag yaa ngi ñëw ci kaaba gi ba nga ñëw tawaaf da nga ñëw ba jotu kaaba gi bala ngaa dugg ci tawaaf bi nag talbiya bi nga defoon mooy làmbaay bi da nga koy dindi jaar ak sa poqtaan ndeyjoor aj ka ci sa kaw mbaggu càmmooñ sa loxo ndeyjoor nekk ci biti nii nag moom lañ sàkku pour def kuy def tawaaf nga def nii léegi nak da ngay waxu ba ñew ci ajarul aswad ngir nga commencer sa tawaf boko mané fon ni waji def mo gën bu fekkante ne amul mbokhol bokh booloo su mënul nak nga laal ka sa loxo tek sa gimiñ bu ñaar yépp mënul ne boko soré nga daal def ni sa loxo yëkkati sa loxo ndey jor dal ne allahu akbar bu ko defee nag néeg bi féet la sa càmmoñ nga daal di commander di tuddu yalla di ñaan nak di wër nak waaye nag sopp nañ ci yow muy dox nga gaawal dox bi comme nii nga xamante ni sa tànk dafay jege tànk dafay jege mu bar lii nag moom ngay def ci ñett wër yu jëkk yi lii nag góor moo koy def waaye jigéen du ko def ñetti wër yu jëkk noo ngay def ñeenti wër yu jëkk yi nag da nga dox normal waaye boo egsee ci ruknu yamaani bi mooy koñ bi boo ci egsee nanga laal ak sa loxo boo ko manee da ngay laal rek nag waaye doo ko fóon da ngay laal rek waaye bu fekkee mënul ne kenn sant la nga nga di ko junji comme ni nga doon def ajal wasat waaye bëgg nañ boo jógee ci koñ boobu bala ngaa egsi ajal aswat nga naan fi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa aqina adhaban nar loolu mooy ñaan gi ngay ñaan ci diggante boobu bu ko defee nag nga daal di wër néew bi nag juróom ñaari wër wër yépp nag yaa ngi commencé ci hajarul aswat waaye yaa ngi jeexalee tam xaajarul aswad comme ni nga defoon nag ci wër bu nekk rek noonu ngay baamtu ba ba ngay àggal sa wër boo ko defee juróom-ñaari yoon sa tawaaf mat na léegi bi nga tawaafee ba pare sa loxo bi newoon ci biir da nga koy ci biir nga daal di ñëw nag ci maqaamaam Ibrahim nga daal di fay jàng waxi yàlla ji wattaxisu min maqaami ibrahim musalla nga daal di julli ñaar rakkaa yu oyof nag ci gannaaw maqaam ibrahim bi bu fekkante mën naa su mënul nekk nag foo ko mën ci jàkka rek foofu baax na waaye bul buuxante mukk ngir julli ko foofu te mën koo julli faneen fii nag ñaar rakka lay doon rakka bu njëkk bi a ngi def fatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruun rakka ñaareel bi yaa ngi def fatiha ak qul wallahu ahad léegi nag boo paree ci sa ñaar rakka nga daal di wuti nag euh, li ngay dox muy safa léegi nag boo agsee ci safa da ngay jàng li yàlla wax fii inna safa wal marwata min sha'airillah nga daan na nag maa ngi tàmbalee li yàlla tàmbalee muy safa nga daal di ci kaw safa nag nga daal di jublu kaaba gi nag nga daal ne alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar nii ngay def yëkkat sa ñaar loxo daan ne ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء خدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأعصاب وحده لينا دكاي بام دو نيت يون بو بار نغا ديف ساي نيان تي لو مانام لو تي مانا تي ريك غادي واتي نك دادي ووتي نك مروه waaye nag booy dem nii na nga góorgóorlu de ci sëkk tagg yàlla boo essayé nag ci affaire bu wert bi dangay ngay gën a gaaw daw dangay ngay ñukk ñukk bu baax a baax a baax li bu baax ba ba ngay àgg ca ba ca des boo àggee ca ba ca des nag nga daal di dox sa teeyu bakkan dox ndànk rek ba ba ngay egsi marwat bu fekkee egsi nga marwa nag na ngay def rek comme ni nga defoon ci safa moy alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar non ngay def soko defé nak am nga ben dox nga la di nak wuti safa waye fuñ fay dox rek na nga fa dox fo extra ci wertu bi na nga dawaat bag ci ban ba ci des boko passé nga doxat ni nak ci la sa ci la sa dox di mate nga la di commencer ci safa waaye yaangi jexale marwa legi nak bo paralee bu sang yobi jexé yomi don omra bu don da nga don omra legi bu la nexé man nga watu man nga dag wàññi sa karaw ba ba ngay dindi sa armal fekk nak sa omra matna legi nak yi aramon ci yow yu ci bari da da nga nan ci yow da nga mëna dag dagg wé da nga mëna sol yu ñew waye nak da ngay tok makka ba ba bisu juroom ñett bañu armalat bu fekkee nak defee won omra da nga len boo aj aj rek nga don defal aj omra sa um sa ihram do ko dindi da ngay des ak mom ba ci bis boba yow mu tarwiya nak manam bay bisu bisu juroom ñett bi ci tabaski dañuy genn nak da ñi armalu won ñi xay xam dañoo omra won rek dañuy armalat ñi xay nak dañ doon aj ak boole aj ak omra ñom dañuy yor ci arma ñoo di wuti nak mina bu ñu exé fi laa fi julli julli fi tekkusaan julli fi timis julli fi gee fanaan fi daal fay julli fajar yépp nag dañ koy wàññi ñaar rakka lañ koy julli yi julli yi rak yi ñeent rakka ñaar lañ koy def waaye kenn du ko wàññi kenn du ko boole boo fa jegee nag nga daal di wuti nag arafa ndax bisu juróom ñeent bu jant bi fenk da ngay dox na wuti arafa fi boo dikki arafa ñaari julli nga fa julli da nga fiy julli tisbaar ak tekkusaan waaye dañ koy boole da nga def boo paree nag nga daal di yëg ci arafa nga di fay taxaw rek nag jàkkaarloo kaabe gi yëkkati say loxo di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan comme ni ko yonent doon defee nii lañ koy defee roye ko ci moom sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee jant bi sonn nag nga daal di nag jóge foofa nag daal di wuti nag musdalifa léegi jant bi sona timis gaa ngi bëgg a paase waaye da ngay dox ndànk rek bu ci dawante bul yàkkamti waaye del bul bàyyi tal bi nga wax labbay kana bu ko bàyyi mukk na nga fexet bul gaañ kenn ci yoon wi boo egsee Musdalifa nag da nga fay daal di julli timis ak gee waaye da nga leen di boole waaye gee dañ koy wàññi ñaar rakka lañ koy def bu ko defee nga dafay fanaan nag boo jullee daal di fajar nag da ngay julli fajar julli suba toog fa nag di ñaan di ñaan di ñaan ba jant bi bëgg fenk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 xeer bu ne loolu lay àndal fekk juróom-ñaari xeer la nga daal fay jóge nag taxallul awal bi daal di jeex booy rey sa tabaski boobu da ngay daal di rey bu fekkandee yaa ngeeg sa tabaski da nga koy daal di rey foofu bu ko defee da ngay daal di mën a dagg sa kawru bopp wala nga wàññi ko bu fekkee ne nag da moo gën watu gi moo gën jigéen nit létt bu nekk bu fekkee dafa létt karaw gi ku ne da ci dagg dara bu fekkee fekk nag taxallul awal bi mat na moom legi nak yep yi la yi nga xamanteni aramon na la ci armal bi dagan na la bam nak nak des nag mu baas rek jigéen ni manam bànneexu ci jigéen ni wala ak ñom koku mom daganagul legi nak ya nga bëgg def nak tawaful ifada da ngay setalat manam defor sa yaram bam mu parfum bala nga duggat li legi nak doga sol sa yere normal daal di wuti nak makka bo exé nak da ngay daal di wëraat kaa comme ni ko waye da ngay def tawaful ifada bu fekkoon nag tawaful xudóom bi nga doon dox defoon nga fi sànq ya be defoon nga ko kon bii moom dootoo ko baamu da nga daal di wër kaaba gi rek bu fekkente ne jeexal nga nag. léegi nag da ngay daal del si Mina xam nga gannaaw tawaful ifaada bi nga defoon dañuy del si nag Mina ñu fanaan fa nag fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett ñetti guddi lay doon am na ñoo xam ne ñaar lam ci fanaan waaye na nga fexe bala faa jant fenk bu fa jant bi so balaa jant bi sooy ñetteelu fan ba foog nga fanaan moo tax ñetti fan ngay fanaan waaye ñetti fan yi nag ci ji la bokk ku ko bàyyi foog nga def hadiyu kenn waru koo bàyyi maanaam wala ngay sàggane ngir te amoo benn ngant léegi nag da ngay daal wuti bis bu nek yi ngay def maanaam bis bu ne ngay fan mi naa da ngay sanni jamra ñetti jamra yep ngay sanni da ngay ñew ci ta suqaraa commencé fi mom mo gënoon a sori makka bo pare nga tekki bi ci digg bi muy jamratul wusta bo pare na nga mujjee jamratul aqaba ben bu nak juroom ñaari xer ngay sanni xer da nga fi indalé fukki xer ñaar fukki xer ak ben nga yor boy ñew ndax bo ñewé ba fi for xer na jafé lol bo pare jumlatul ula bi nag da ngay taxaw nga ñaan jublu kibla gi di ñaan bo deme ci jamratul usta nga yëkkatiwaat sa loxo di ñaan waye jamratul aqab bo ci àggatee bul ñaan ndax bobu nit ñi dañuy bari da ngay sann sa jamra rek daal di dem legi nak, def nga ñett yépp nak da ngay daal di delsiwaat màkka nag boo waté makka nak da ngay daal di wër wër kaabi gi nak juroom ñaari wër pour taggo ko wan nak nak maa dem tawaf binak, nak bu fekkene jigen la bu gese mbërëk wala mu am regal ñoñu duñu ko wër ndax may na len ñu bayiko waye tawaful ifada bi mom bu fekkee jigen bu am mbërëg la mom day des makka bu heure bu labé rek def ko waye fokk nga def ko te kenn du ko def man nga def nak sa'yu bi ndax sa'yu bi ak kaaba gi bokkuñ fuñu nek man mën nga jidal sa'yu mën nga dox dox bi